chers amis internautes et fidèles auditrices et auditeurs vous qui avez choisi le site des grands événements VIP People TV s'informer juste et vrai Tay nak dañu am mbégte ak bànneex del soit ci benen numéro nee naa fi réew mi toll dañ koy waxtané. Lutax parce que réew mi moo ñor réew mi soxal waaye fiñ koy waxtané dañuy xol sujet bi ndax koku ñi ci dalal xam-xamam màcc na jëm ci walu sujet bobu. Motax tax ñu am mbégte ak bànneex ñew seet ko fi ci di Medina. du kenn nak kudul monsieur le maire de la Médina ministre conseiller du président de la République monsieur Bamba Fall Bamba ñu ngi lay nuyu daal ak ci VIP People. Tange maa ngi lay fay bu baax baax di la dalal fii ci Médina pour ñuy waxtaane Bamba tay yangi ngi yëngu ci langue politique bi gis nañu situation politique bi nu mu hypothéqué Sénégal ci ay at. lenn la woon moy non à la troisième candidature du président Macky Sall mu junj en 2016 le référendum bi né 2019 suñ ko falaté moy dernier mandat mu bind ko ci livre bi campagne mu wax ko teewut ciow lolu occupé na la toile de 2019 à 2023 le 3 juillet mu marqué histoire politique du Sénégal ci déclaration ci discours bu mu nation mais amna ñu ci am mbetteel bu mu né du candidat amna ño na ci en tant que ministre conseiller, en tant que maire de la Médina, en tant qu'un homme politique qui a chôné avec le Parti Socialiste, ban ex-fitay, ban jàngat nga am discours du président de la République Macky Sall. su ma nee aw je ci mbetteel damay wax lu dul dëgg ci mbetteel loolu parce que li ko jiitu rek posé na acte yoo xam kuy lire politique da ngay jàpp ni dina candidat.

Il yoy taxone nañu ni day candidat investissement yu bari mu def ak gi nga yi ak yi am nañ ko Sénégal ndax Ba bu rafet bi def da nga Sénégal signature mu am doole ba kon fi Sénégal tollu ci euh, développement ci investissement ci émergence ni bu Sénégalais yi ko mais Macky la waxul woon kenn dara xam na li mu xam moom kese nee na kàddoom la tenir ah loolu lu jafe la ci Sénégal day nekk nit koo xam ne day entrer dans l'histoire ndaxte gannaaw sengoor mi dem ba xool ni buggatuma ne juuf ñëw ñu ko fi wutu tey amuñu li Macky Sall am ñoom défaite moo leen fi jëlee ñu jël avion génn réew mi Macky Sall nag mooy premier président bo xamni dafa tok di organiser parce que Senghor deful loolu. Senghor dafa jël Abdou Diouf jox ko ko. boobu constitution bi maye woon na mais bi ki moni man duma jël bayina waye ma organiser élection bi tok ba sama dir jeex le 2 euh, le 2 avril. su ci paré sax gennuma réew mi damay tok jappalé lool jappalé ko mu dem parce que man. loolu bu amee sax dina tane ndaxte fi Sénégal toll ñuy ga gaz bi ak pétrole bi ak or bi fii ak juróom-ñetti weer muy tombeek élection yi donc nga indi fi ko xam ni xamul dara daara ci état le temps muy toog def passation de service ministère yi di ko def boobu yaa ngi ralentir datu production yooyu nga xam ne Sénégal moom la yaakaaroon pour mën cee at yi la di ñëw Macky la dara bu nekkoon candidat dara mënu ko teree gagné. Dans le Sénégal, 17 millions d'habitants. Les manifestations ont été faites, il y a 1 million de personnes. Ben, y a 500 000 personnes. Donc, ben 500 000 personnes, ça fait 2 000 personnes, 1 000 personnes. Mais, électeurs, il 7 millions d'électeurs au Sénégal. Et nous avons été perturbés, il y a 1 000 kon ay millions ñu ngi tok ci qui bi yeur seen kër yeur seen carte électeur tok nopi ñu kon ñi doon ni ci mbedd mi lañu gis té ñi ci mbedd mi ñi ci amuñu carte électeur de ñi ci Sénégal ñi ci duñu ah liste électorale moins de 350 000 cinquante mille au niveau national au niveau national té ont xamni doon millions lay manifestation nga

tay Macky Sall am le président États-Unis amul ci ci Poutine am le président France amul ci Poutine am le président Union européenne am ci Poutine bu ko woyou muy ko bu ñëwé nga sentir ni admiration la koy xolé mom la koy topé Union africaine tay réew ñu wër yépp yëngu ben baaxut Gambie gis nga ni même président bañ koy fal fi le prêter serment fi ci Sénégal bo démé ci Guinée yi nga dem ci Mali dem Burkina fépp yàqu na. Sénégal fi desoon. kon bu bañee Sénégal dab ñooñu il nii indi apaisement non je pense que il rentre dans l'histoire tey mën nga ni tey gouvernement bi un am conseil d'administration Macky Sall day mel ni jouer le rôle président de conseil d'administration. Du prochain gouvernement Du gouvernement parce que kii fa le président. Mhm. mënul def lu mu waxul ak Macky Sall ndax fo de Macky Sall yegg tankam yegg fa tankam du fa gaaw a yegg waxuma du fa yegg de. mais du fa gaaw yegg. d'accord ndax Macky Sall ku mu woo nga wuyu te ku mu fëgg nga d'accord ci biir loolu firndeel nga ko léegi diggante président Macky Sall tey lu mu réussir ci président Russie di Poutine président Amérique réussir ko ñu gis tey gëdd ak dayo bi nga xamante ni président am na ko à l'international. au niveau du Sénégal souvent dañuy naan politicien kàddoom jarul dóor sa doom ñu bare waxoon nañ fi wax waxeet donté na am nga ci mbettel gis nañu tay candidature bi mu renoncé constitution euh, conseil constitutionnel loi may na ko mais mom mu jital la parole d'honneur en tant que politicien ban diagnostic nga ma defal ci la parole d'honneur ak li nga xamanteni ni yoon may na la sa bir wax ne nga su demone élection day gagner xam nga man sama wax duma ko neub mhm. d'accord ci lu def Sénégal soxlawuñu un amateur ñëw duñu duñu sonalaat dañuy delloo gannaaw parce que tay, yalla may ñëpp xam nañu président africain mo ci ëpp ko. kot. ñëpp xam nañu fimu indi Sénégal ci 12 ans Sénégal mosu fee egsi mu ñëpp xam nañu ci ayam lañu yalla yàlla may ñu ay ressources naturelles même ba ci coupe coupe football yëp ñu gañe ko faf ci ayam lañu yalla yàlla lolu. est-ce que tay nak ndax sa cadre sam ko sam ko constitution na war nañu tax mu delloo Macky Sall bu doon jaay Sénégal ci jot. Macky Sall bu doon jaay ci Afrique Sénégal du ci jot. kon tey jii man bokk naa ci ñi naan nit ku nekk dafa am loo moom ak lu nit ñi moom ci yow. moom bu tàggoo woon nit ñi nuñ ko bàyyi mu dem ndax dégg na li ko maire yi wax mais tey comme que dafay def teraanga bëgg a sàmm kàddu am ñu naan ko tu étais obligé da nga ragal ak dañ laa tiital a tax man su ma doon moom sax maa waxoon waxeet amoon na fi de. am na ko fi waxoon ni maa waxoon waxeet. maa waxoon mais tey jii su ma doon moom bu gars yi naan fëgg seen dënn. daan comme que da ngeen di fëgg naan ñemewu ma damay sax nekk candidat faf d'accord parce que tey Macky Sall nekk candidat ku koy teelee gagné gars